temps yi temps yi temps yi xewi ngeen. moo tax ma ñëw di jooy ci coono. waaw pour mu temps yéen a ngi xewi de. waaw yokk doole billaay yéen a ngi xewi. te bu sàggane dinañ fay nag. <laughs> aji Sarr aji Sarr da leen daf leen fay yéen ñaar ya ya. Hmm? su ma sàgganee. su ma génnee at nga nga gis néew bu soxor. <laughs> yéen ñëpp laay fay. <laughs> balaa caat ngeen fexe ba xewaate. fexe na dama xewaate aji Sarr bi boo ko fexe dina ma fay mu suuf ko. ma aji Sarr bëgg ñëw fay nii. moo tax ma ñëw moo tax ma ñëw jooy ci yow man nga ñaa yow heure bi fi mu toll nii boo jugul ci sa dogee xew xew bi gaaw barke yonent bi mais mais ah. mais mais nga ni boo nekkee néew a a ma fay ay saar a ko jël tànk ko nii affaire bi jaaxal ma ay saar ay saar waaw feeñu Macky Sall ba am naam yàlla soo ko mu am naam dégg naa bu baax don mostra don ah.